illallah sayyiduna muhammad yal na nu daajeek moom la ilaha illallah sayyiduna muhammad na nu daajeek moom la ilaha yal na nu daajeek moom mani ana soppe yi yoonin ana soppe yi ana soppe yi yoonin ana soppe yi ku bëgg yonent bi defal ni say baaraam màggal yonent ñu mani lay lay lalla seyduna muhammad yal na nu dajeeg moom lay seyduna muhammad yal na man de bismillahi ma fentati abu way jame ko ci yonent bi jar sama way wi may way man man koy wayal gaay yonent bi na ñëpp def ni ñu màggal sayyiduna muhammad la ilaha illallah la ilaha illallah lanu yelen we sayyiduna muhammad yàlla la ilaha illallah sayyiduna muhammad yàlla na nu gisee ak moom sayyiduna muhammad la ilaha illallah sayyiduna muhammad yàlla na nu dajeeg moom la ilaha illallah sayyiduna muhammad yàlla na nu laa ilaha illallah sayyiduna muhammad yal na nu dajeeg moom laa ilaha sayyiduna muhammad laa ilaha illallah sayyiduna muhammad yal na nu dajeeg acca mi ngi noonu internet Dakar Buzz comme ni ñu leen ko waxee woon sànq rek euh, mbégte la tey macha allah gis nañu ndogu yi euh, gis nañu teraanga yi li ma gën a neex ci mbir mi nag mooy xale bi euh, macha allah yaayam da ko ñaanal gorom ñaanal ko papam moom toj na fi ah, macha allah ñëpp def nañu ay seede yu rafet rafet euh, rawatina nag ñi nga xamante ne ñoom lay liggéeyal euh, euh, soxna Soda ñu ngi lay nuyu. soxna Soda léegi dama ci teg mu sell mi. mu sell mi <laughs> maa ngi lay fay laal la di nuyu tamit internet yi képp kuy seetaan Dakar Buzz ak Jafat TV maa ngi leen di gërëm di leen sant waa ci teewlu bi. société bi nga fàttali ñuy tur man mënu ko wax de. staffing agent. staffing daal nga def tur bi naan fa nga nekk lijjanti naa ko ba sonn ñu ne ma ah. anglais la. anglais la staffing mooy euh, staff équipe. équipe lépp si équipe la lépp day regroupé waat ci équipe bi on travaille en équipe gis nga tey amuñu planning amuñu kii moo war a def lii amul kii moo war a def lii on a tra c'est un travail de chaîne tey dañoo ñëw ku nekk xam li ngay def ñoom ñoo def lépp ils ont tout fait ñoom ñoo def lépp ñoo cotiser ñoo def ndogu bi ñoo def ñoo def service ñoo def lépp tey gisoo ma def ma dara. tey ñàkku ma sonn ma dama doon jaabante rek xam nga foog ma jaagat jaagari noonu jaay tiital noonu rek. <laughs> est-ce que liggéey ak mbooloo yomb euh, bon bu dee man aw ma j'ai pas aw ku nekk sa caractère ak ku nekk ak ni nga mel man d'habitude je suis sociable je suis très communicative tout du coup man loolu laa Euh, noonu laa màggee j'ai fait du journalisme di def reportage di dugg si tàmm dugg si vraiment éléments yi voilà donc loolu laa jàng loolu laa tàmm après ça c'est dafa dafa dafa jàll normal damay ñëw rek damay liggéey je vois pas sentir ba damay def li ma bëgg je vois du ma sentir heure waaw du ma sentir heure bi dem. du ma parce que damay def li ma bëgg li ma bëgg laay def donc du ma sentir heure euh, mbooloo lu mu bëri bëri bëri dama koy gérer parce que loolu mooy sama passion et que loolu laay liggéey mooy sama liggéey voilà. Euh, yaa ngi koy wax léegi euh, beneen métier nga doon nga doon jàng leneen nga toppoon lu waral nga xëy rek dugg ci mbirum traiteur. bon man journalisme laa def moom laa jàng nekk nekk journaliste. moom laa def moom laa pratiqué durant des années di dem reportage di présenter journal def Walfadjri def RFM def euh, Océan FM def Convergence et tout. tax nga bàyyi loolu. bàyyiwuma dama dama mariée après j'ai eu des grossesses euh, consécutives sama grossesse yi teglo léegi ma def euh, ma def deux années sabbatiques defuma dara xam nga xale yi dañoo xarañ dañuy génn am diplôme. dugg si presse bi di liggéey léegi yow nga nekk maire nag dootoo duggati du noonu <laughs> pour être plus sérieuse bon bi ma bi ma paree bi ma amee doom j'avais du mal à avoir une femme de ménage bu may toogal sama kër loolu c'était mon principal souci am jànk bu may toogal sama kër ma mën a dem liggéey donc ma ma ne kon may may may woo ay agence maanaam man lan tax amul Sénégal agence c'était en 2015 ma ne lan moo tax Sénégal amul agence boo xamante ne mën na joxe jànk fiable c'est-à-dire jël jànk tester ko euh, former ko placer ko si kër nit yi xam jànk bi ngay placé xam li mu mën placé ko ba pare def suivi lu tax loolu bëggoo sa kër manqué dara mu ngi noonu léegi koo koo woo du man man duma ma xale man du ma bale togg lañ ma jëlee du ma nàngam ma ne man kon il faut que ma jóg ci lool donc c'est là euh, que j'ai ouvert une agence de placement d'abord ci la commencé may joxe jànk franchement je l'ai fait euh, plus de sept ans et l'agence est devenue incontournable si placement de personnel façon personnel bu nekk placé naa ko vraiment Euh, euh, euh, début bi métti woon na mais après vraiment maa ngi si doon roode mënoon naa ko mënoon naa placer et tout après nag ñi ma doon placer au fur et à mesure ñooy ànd si xew yi ak ñoom ma leen di former ba ñuy commencer def service léegi nag si lañ defee au fil en aiguille daal si lañ dugg ci service traiteur mais tooguma toog rek def service traiteur au fil en aiguille depuis 2015 ba tey ñuy commencer di di événement yi ñuy raxas di di nettoyer di di gérer di ranger ba au fur et à mesure ñu mën dressage au fur et à ñu jënd suñuy bagage ba gis nga suñu stock de matériel ku soxla même 2000 dañuy couvrir 2000 2000 personnes événement 1500 personnes événement 2000 personnes dañ koy dañ koy couvrir parce que on a le matériel te on a le personnel on a gis nga éléments yi on a 50 prestataires yi nga xamante ne fii la ñuy liggéey ku am événement dañuy téye cinq événement par jour dañ koy téye. dañuy téye cinq événement par jour cinq événements de deux cent personnes mën nañ ko téye mën nañ couvrir deux cent personnes deux mille personnes mën nañ couvrir mille mën nañ couvrir deux mille waaw. Euh, mu nekk lu am solo comme ni nga ko waxee rek euh, mais dama dégg lu gën a garaaw am benn bu xam ne dama ci teg sama bët ma jiwul ci laa xamante ak yow léeg-léeg nga dem événement jàmbur fekk dara manqué ñu ne Soda day mottali yëpp te du la fayee. waaw <laughs> dem naa événement yow événement bi ñuy njëkk a tase benn bâche lañ tegoon ma dem dooli bâche. waaw suuf laa ko déggee. dolli chaise yi <laughs> chaise manqué ma dolli man moom xam nga événement bi su ma ñëwee dama koy def sama événement su ma dem si événement wutatuma fa xaalis nee naa la su ma man su ma fayee samay élément rek damay kontaan jeex na man fu may dem wutatuma fa xaalis no non su fekkoon loolu la kon du ma yegg fii tey c'est parce que damay def li ma bëgg je le fais d'abord par passion su ma tëddee damay kontaan parce que fu ma jaar clients yi dañuy kontaan franchement client day kontaan samay élément du ñu yóbbu lekk. du ñu lekk sa lekk doo ma jox may wàññi wala di roppat soo ma joxee ñaari xar moo koy servi ba mu jeex su matul sañ naa woo traiteur ci saa si ne ndax dese woo foofu xar wala dese woo foofu ceeb ma jënd ko servir ko parce que pour man ki ñëw si xew bi d'abord man lay njëkk a gis man sama xew la c'est-à-dire boo ma woowee nga ne ma dama am xew man sama xew la d'abord dama am xew sama xew la même su fekkee des fois waxaale client ba mu ba yegg si cëppaandaw bi mu ne la finalement jëluma la sama tante sama tante ne la le ma ne ko loo bëgg ma jàppale la si. parce que même bu weesoo man service bi may def et tout soo bëggee ma orienté la woowal diw woowal diw woowal diw te yeneen traiteurs yi tamit dañ ma koy defal. yeneen traiteurs yi dañ ma koy defal damay woo damay woo euh, dañ dañ di woo ñoom tamit ñu fees ku ci mel ni saveur ñaambur mu fees mu recommandé ma ak keneen ak keneen voilà. waaw ah, mi ngi noonu mu nekk lu am solo euh, ndax da ngay def ay déplacement ci yeneen euh, ci yeneen dëkk yi parce que parfois ñi nekk ci région yi wala ci dëkk yu sori sori dañuy bëgg mais dañuy wax ne lépp dakaar lañ nit ñi lépp seen dakaar lañ ko yemale. laal ñun fépp la ñuy dem ñun euh, ñu ngi jóge Touba ñu ngi jóge Touba balaa Touba ñu ngi jóge mbuur balaa mbuur ñu ngi jóge Kaffrine dem nañ Touba plusieurs fois dem nañ ci waawan dem nañ Mbour dem nañ Kaffrine ak fan mais dañuy dem fépp. Kaffrine sori na de mbaa tàngul mbaa loxo bi tàngul sooda. mbaa di nga jàppale ñu nekk si biti. ñëpp laay jàppale ñëpp franchement nee naa li may liggéey dama koo bëgg dama koo bëgg li may liggéey dama koo bëgg yow gis nga yow gis nga ni may liggéey li may liggéey dama koo bëgg dama koy liggéey ba fin damay sourire ba fin damay reetaan ba fin parce que li may liggéey dama koo bëgg avant sax may liggéey lii sama kër nii laa doon recevoir sama kër yaay lii la ñu jàng sama yaay buy recevoir da ngay foog ni day fet xoola tey li fi da nga foog nii dañ ko préparer mais dañoo toog nii rek génnee bagage yi commencé def parce que loolu la ñu xam loolu la ñu mën loolu la ñu bëgg c'est-à-dire suñu passion la suñu kër nii la ñuy recevoir bu ñu amee dîner bu ñu invité dîner nii la nii laa màggaale nii laa màggale organisation invité nit yi sama goro dem si yàlla si Samba Laobé Seck maa ngi koy ñaanal moo yàlla xaree ko àjjana lu ma daan wax su ma amee invitation nii ba mu toog gan toog may jaabante di indi lekk di teg di teg danaan xool ko elle est dans son élément lii rek la bëgg parce que mooy li ma bëgg c'est-à-dire nit ñu toog may organiser di joxe lekk di dugg di génn loolu laa bëgg moo tax mënu see fayeeku nit lu cher wala non non déedéet noo noo dama si dama koy dama siy def ak xam mais duma liggéey à perte du ma liggéey à perte mën nga ma jox tey sa xaalis ma dépensé la ko si sa xew ba mu jeex mais tamit mën naa man ma am marché boo xamante ne damay gagné noonu la voilà noon la duma liggéey à perte parce que bu ma liggéey doon liggéey à perte tey doo fi fekk villa bi nga fekk lépp matériel la hmm? kaw ba suuf lépp matériel la jël villa jël ay employés di leen fay tu as plus de 2 millions 500 de charge euh, mensuelle salariale loolu kon nit ki nekkul di liggéey à perte. ñaata employés nga am. instant yi j'ai 10 yoo xamante ne CD CDI ak CDD yeneen 48 yi. ñoo nekk ay euh, euh, perm euh, prestataire prestataires yi minimum minimum ils ont 10 mille par jour minimum minimum xam nga loolu il faut nga liggéey il faut que nga il faut que ngay ngay gagner pour mën ko couvrir voilà liggéey bi yomb na est-ce que yomb na ndax ni muy baree parfois ñu gis ne événement bu xamante ne ci ndékki ngeen di commencer après ndékki ngeen dem ci añ après añ ngeen dem ci reer ku nekk ak côté am naka ngeen di def ba mën a liggéey loolu ci ci ci ci benn jour man su ma leen xoolee léeg-léeg da ngeen da ngeen may jaaxal. man sax xaw ko. <laughs> boo bëggee dégg-dëgg man sax xaw ma ko yàlla xam na ko man na maa jékki-jékki rek ñu ne 2015 def na 8 ans 7 ans xaw ma 8 ans noonu ma ciy liggéey di si liggéey nii rek danga ma naan danga may toog nga ne ma nan nga def pour en arriver là nan nga def ba sa emploi mel nan def ba nangam xaw ma ko man daal ku négation gëm li may def fonk li may def hmm? xam lan mooy àqu liggéeykat ak lan mooy àqu liggéey su ma génnee sama kër pour dem liggéey bàyyi sama njaboot damay liggéey dama koy joxe àqam ba mu jeex defe naa loolu mooy secret bi ba pare am ku may jàppale sama jëkkër sama conseiller la mën naa ne si agence bi lay liggéeyee sax parce que euh, que ça soit euh, le choix du nom le, les recrutements le choix de la ligne ni ñu war a doxaleeg lépp il intervient lépp lay intervenir de loin lépp lay intervenir du xëy si yor na liggéeyu boppam mais c'est comme si fii lay liggéey parce que daf ma jàppale bu baax a baax a baax bu baax xam nga ni événementiel da dangay guddee da ngay jóg n'importe quelle heure da ngay ñibbi si n'importe quelle heure da ngay guddee donc soo amul góor bu la jàppale doo dem moom ak famille wam parce que famille wam mënoon nañ ko ne euh, sa jabar li muy bouger bëri na li muy guddee bëri na li muy dem si région yi bëri muy voyager bëri na mais non kon moo ma jàppale loolu rek la Euh, question la woon sax moom la ñu bëggoon a tëjee ndax euh, sànq laaj nañ ko sa yaay laaj nañ ko sa papa laaj nañ ko aussi sa goro moom tamit def na ay seede yu rafet ci seen diggante euh, léeg-léeg gis da ngay toog ci kër rek sa xel ñëw takk na tey la sa anniversaire wala bëgg nga defal sa jëkkër surprise wala bëgg nga seeti sa goro ndax événement yu ndaw yooyu noonu da ngeen koy def. dañ leen woo nii vite fait. ñun def nañ fi jam ñaajo petit déjeuner cinq personnes ku doon anniversaire nii rek ñu bëgg ko defaral surprise cinq personnes ñu dem dressel ko ba baax. anniversaire cinq personnes waaw te te te moom kii anniversaire moom sept war na ko fekk bureau di ko ñun cinq heures du matin ñu ngi fa dressé lépp caabiwaat bureau bi waaw. <laughs> loolu garaaw na maa la ko wax dañ koy def vingt personnes ndogu yii dañuy def vingt personnes ndogu yi traiteur dañ may woo ne est-ce que di nga def vingt personnes parce que ñun duñ ko def est-ce que duñ la jox marché bi ñoom béti traiteur et tout dañ may woo ni ma marché vingt personnes la ñu def est-ce dañ ko def ma ne waaw dama koy def. parce que ñoom duñ ko def wala kenn woo ma ne ma dama woo diw mu ne ma du jël 20 personnes wala du jël 10 personnes ma ne dama koy jël bien sûr j'ai eu le matériel j'ai les employés qui son là dañuy defaale location de vaisselle yow mii mën nga am sa anniversaire tey hmm? euh, yow mënoo jël traiteur par exemple mën nga traiter sa bopp wala yaa faral di togg sa bopp wala li ngay togg bëriwul wala am nga traiteur wala am nga seen waa kër koo xamante ne dafa mën a togg ñun di defal la dressage kese kese kese kese wala ñu luwee la matériel kese kese kese. loolu problème da bu toj da ngay fay. Euh, matériel bi plus souvent du toj. wóoru daal ñiy loué dañuy day am costion ba pare du yëppay toj matériel yi am na yoo xamante ne weñ la am na yoo fer la yoo xam ne inox la du coup du léppay toj yow yaa xool rek li nga bëgg ak ban genre yan genre invité ngay am yoo xamante ne mën nañ gisoo tey on avait comme de personnes on avait 100 chaises 100 chaises yi fees na ba génne tabouret dara tojul te pourtant ay ver rek lañ fi génne mais dara tojul. Mhm. Euh, place bi toujours mu ngi cité Aline Sow benn place bi rek waa benn place bi laa am. ñaanal ibi woon naa Thiès ma ma aw ma ko ma fa teg parce que j'avais formé kenn mais am finalement mujjul woon antu mais jéngi woon naa ibi Thiès waaw léegi nag bëgg naa ibbi fépp bëgg naa ibbi surtout Touba ak Tivaouane bëgg naa fa ibbi parce que ville yoo xamante ne la dama fa liggéey ñu marqué ma waaw dama fa liggéey ñu marqué ma màggal Touba agence bi yëpp lañu yóbbu loué place. bu màggal jotee dañuy def suñuy camion jël matériel bi lépp deux mille 2000 verres 2000 assiettes 2000 fourchettes 2000 couteaux 2000 petites assiettes lépp la ñuy yóbbu def ci ay camion bu ñu yeggee ku soxla loué biir Touba ñu loué la su màggal gi paasee nga retourné sa bagage ñu paasaat indiwaat ko loolu yëpp pour jàppale du woon pour gagner sax parce que transport ba Touba camion xam nga loolu métti na. kii mënu ko couvrir euh, location assiette cent francs mënu ko couvrir fourchette 75 francs verre 100 francs mënu ko couvrir mais on voulait que ça soit accessible que ñëpp am parce que Touba ñëppay bëgg a dressé am na ñoo xamante ne amuñu euh, mën pour fay traiteur amuñu capacité fay traiteur mais quand même mën nañ we vaisselle donc lépp lañu ñu yóbboon te bëgg nañ di ko gën a def. Euh, kon daal su ma amee anniversaire am samay togg bopp. ak sama quinze 15000 francs mën ngeen ma ci defaral sama bagage. waaw mais du ngeen ma du ngeen ma dressé. ah dressage mun ñu ko def mille parce que élément yi da leen di fay ba dañuy paas ñëw paasal bagage yi. mais 15000 daal mën naa ci am samay bagage yu matériel waaw. bu ma demee tegee nu ma ci am matériel bu demee dressé. ba pare ñun fii bu ñu lay loué dañ lay dressel bu fekkee yow da ngaa ñëw mu wóor ñu ni munoo nga ñëw nga ne damaa bëgg a loué dañ lay wax d'abord lan ngay def nga la. wala déjeuner la wala cocktail la wala lan la ñu dressel la yëpp matériel ne la lii nga soxla après yow nga foto ko wala nga vidéo ko après nga jël bagage yi nga loué ko nga dem soo demee nga teg sa photo wala teg sa vidéo waa nga tegee ni nga bëgg waaw. soo nag liggéeyoo da ngay maye ñun dañuy def conseil am def ta yàlla. location dañuy def conseil en même temps tout le temps man ku fi ñëw location am na benn table boo xamante ne moom lañ lay tegal boo ñëwee toog. samay client ñu ngi may seetaan boo ñëwee toog dañ lay tegal sa chaise tegal la table dressel la lépp nga vidéo photo yóbbu say bagage boo yeggee nga dressé des fois dañuy dressé dañuy yónnee ni madame Seck toj naa fi madame Mbaye toj naa fi madame Mbaye ak Mor Seck ñoom ñoo yore bi dañuy yónnee vidéo am ah, madame Mbaye toj naa fi xoolal sama vidéo bi parce que dañ leen di jox dañ leen di wan yëpp ni ñuy dressé mhm. traiteurs yi tamit dañuy dañuy souvent dañuy liggéey ak traiteurs yi lu bëri dañuy liggéey ñoom dañuy ñoom ci ñun la ñuy jëlee matériel ñoom tamit suñu mënul dressé des fois dañ leen di yónnee suñu vidéo dressage yi mooy traiteur yi nga xam dañuy doog a dañ leen di aider lu bëri ñun di leen louer matériel ba pare ils ont euh, prix bi mooy gën a yomb que keneen ci wàllum togg yi tamit euh, plat yëpp ngeen lépp la ñuy def yaa loo fi lekk tey moom ñoo fi lekk ñoo ko def <laughs> lépp ñoo ko togg ba pare c'était vite fait gis nga lii dañ ko décider nii rek dañoo togg rek décider ko démb si minuit euh, gis nga fekk na lu bëri antuwul woon décider wu ñu woon ni dañuy bâche wala dañuy def ay chaise wala dañuy def décoration mais tey ñu ñëw tey même ba midi sax c'était pas encore décidé tey ñu ñëw ba nii affaire yi demee nii ala daw mais ñëpp jàpp si franchement waa loolu mooy en une heure de temps ma organiser la sa événement parce que fii 16 heures fii amul dara 16 heures fii amul dara amul bâche amul chaise amul dara ñi fi doon romb sànq ba léegi ñu ngi koy wax fii romb naa fi 16 heures te amul dara te pourtant 19 heures fekk na lekk yeeg lépp tege bâche bi tege chaise yi tege on a reçu plus de 100 personnes lépp tege tout le monde a mangé à temps kan moo ne may ma ndox mu tàng wala may ma tàndarma wala may kenn waxul. fonde bi fonde fonde fonde baa ngi fële mën a fonde. foog ma tibb ci xale yi xale togg nañ seen mën a fonde te kenn lekk ko sewal ngeen xale yi. Euh, foog naa parce daa bëri. Mm. foog naa tamit ni ngeen di defee ci vaisselle aussi noonu ngeen di defee ci bâche yeeg chaise yeeg yëpp yaa ko moom. chaise tout lépp yaa koy loué. lépp ñoo koy lo ñoo lay loué ñoo lay installé c'est-à-dire que la man xam naa ni man maa téye événement Sénégal eh, man événement Sénégal. <laughs> neexul ba neexul mais événement événementiel Sénégal man nga mën a jox sa événement. lépp nga def ko 24 heures ma defal la lépp yow. yow soo paree danga naan yow est-ce que yow li nga ma fay yow jar na li man loolu moom leer na ma événement parce que dama koo bëgg. Mhm. notre particularité c'est que mhm. notre particularité c'est que nous nous sommes des apporteurs de solutions duñu traiteurs. ñun ay apporteurs de solution lañ éléments yi laaj leen ñoom ñëpp luñ lay wax qui es dañ la naan on des apporteurs de solution c'est-à-dire suñ demee kër client bi dañuy dem jàppale ji la demuñu liggéey au-delà de liggéey ñun on des apporteurs de solution ñun ñoo lay ñoo lay liggéeyal sa xew bu paree bomba sa kër kaw ba suuf raxasal la say douche loolu traiteur moo koy def ah yow tamit dañ lay bombal sa kër ba mu set bale febeere lépp parce que dañoo am uniquement ñoo xamante ne nettoyage kese la ñuy def bu ñu liggéeyee ba pare fuñ fu mu nekk nii dans une de temps boo ñëwee fii doo xàmmee koñ bi koñ bi day set wecc dañuy liggéey nettoyer la nettoyer buntu kër gi nettoyer mbedd mi defar lépp doog a ñibbi. loolu ñooñu tamit ci ci loolu tam ci société bi la bokk. ci société bi la bokk ñuy nettoyer fii la ñuy liggéey di fayeeku chaque jour. Mmh. 1000 francs laa démarré waaw ñëw loolu ñëpp seede nañ ko sama waa kër mën nañ ko seede sama jëkkër mën nañ ko seede damaa teye sama 1000 francs ma ne 1000 francs bii dinañ ma ci invité rajo invité ma ci télé bu soobee yàlla 1000 francs yi ba tey jii loolu la ñuy wax bari la barkeel mu ngi nii 1000 yi ba tey te ku si nekk fii ku ma janoog yow ku may doog a jël wala bu ma tëjoo ak yow sama bureau ñuy waxtaan li ma lay wax mooy font taxul ma yegg fii sàggan taxul ma yegg fii mënumaa téye mille francs di ci defar di ci defar ba tabax ci sama garage kër nekk si garage ba yor fa ñetti bureau liggéey fa ay millions ba toxu jël kër gu mag kaw ba suuf def fi ay bagage kaw ba suuf ba pare ay caaxaan may ma ko non caaxaan mayuma ko njublang mayu ma ko sama client samay élément ku ma mënti doon dama lay tenir langage de vérité dama lay wax lii moo mën a nekk lii moo am muy que ça soit les éléments que loolu moo lay avancé loo c'est-à-dire que nga jubal dëggal bëgg li ngay def loolu moo lay avancé loo am courage nag gëm ni munoo def tey mu sotti tey parce que bu fekkoon damaa commencé mu metti ma arrêté dem feneen kon du ma mës a am expérience du ma mës a mokkal li tax tey ma mën a fi ma dem mën naa tukki mën naa tukki voyager xale yi dem nañ seen dem nañ Touba ñoom kese ñoom dong dem tuubaa yore 400 personnes éléments yi kese fi ma toog dañ may yónnee ay vidéo ma naan leen poussé leen nii defee leen nii ba mu pare am naa sam benn xarit boo xamante ne moom tam business sa yor nee na moom loolu du ko mës a am ma ne ko di nga ko ami parce que pour moom nee na c'est inadmissible yónni ay élément am kese ñu liggéey te moom demul teewul ma ne ko di nga ko ami segam maa ko def di nga ko defi man xalaatuma ko woon mais léegi damay yóbbu samay élément donc ma toog fi ma toog ñu may yónnee ay vidéo may xam li xew naan leen def leen nii def leen nii telle heure lii ngeen di servi telle heure lii ngeen di servi parce que mokkal naa ko roode naa si loolu lan moo ma ko may courage moom ma ko may xam ni lépp xëyul sotti expérience mooy def différence mu ngi noonu ba may commencé yàkkamtiwu woon dafa ma leeroon ni su ma defagul 5 ans mënumaa toog ma ne man entreprise laa yore suñ ma waxee jeune une petite structure j'ai un business loolu laa doon wax parce que pour man business laa yore wala structure mais su ma toogee ba woowee sama bopp entreprise mooy man ñor naa yor naa ay employés yu am contractuel ak ay CDIG ñuy liggéey yow mën a bàyyi ñu autonome entreprise bi di tournel boppam hmm? que nga nekk fi ki nga bañ fee nekk xale yi di doxal di tournel seen bopp di gérer comptabilité ñuy gérer commercial gérer commercial ñu gérer communication gérer communication ñi gestionnaire de stock yi gérer stock yi donc lépp muy tourner voilà te yow doo fi nekk mu ngi noonu. d'accord waxtu wi léegi mu jeex waaye bala ñuy tëj rek euh, mënuñ la bañ a ci li nga xamante ne léeg-léeg nga nga war a am ay gan moo xam euh, yeneen dëkk yi la war a jóge bitim réew ñëw Sénégal ngay am problème ñii lan la ñuy lekk ak nangam est-ce que bu boobaa euh, ku la yónnee li nga xamante ne ñoom seen dëkk loolu la ñuy lekk di nga ko mën a gérer ba keroog la mesure du possible. parce que bu ñu ma yónnee woon tey euh, plat haïtien mënuma ko mais mën naa am ay contact par exemple ay ñuy liggéey si hôtel yi ay teeru bi ay yooyu ay pâtissiers yu fay liggéey walla ay cuisiniers yuy liggéey yoo xamante ne dañuy liggéey souvent mën naa leen woo solliciter leen fay leen journalièrement ñu defaral ma loolu mais à la mesure du possible nee naa la duma def lu ma mënul du ma dugg si lu ma xamul voilà damay tenir ku nekk dama lay tenir un langage de vérité client daf may woo wax ma ma ne la mënuma ko wala aw ma ko mais mën naa ko wut mën naa la ko wutal donc duma duma duma à la mesure du possible voilà li may def. Euh, waxtu wi jeex na waaye laata ñuy tàggatoo euh, gis nañu fan ni dëkk bi nu mu xaw a jaxasoo ndaw yee ngi génn parfois xale yi yëngal nga nekk xale di liggéey yan conseil nga leen bi jox. man de saa damay tiit de saa dama naa man waa sama business bi fan la gis ma jékki-jékki woon. xale yi dugg xale yi dugg fii fu ma jëm. <laughs> billaahi du ma génn damay. kaas yi. damay tëju woo élément yëpp ne bu kenn liggéey damay tiit de. damay tiit de après bu ma duggee si Facebook bi gis ñu naan waaw waroo leen nekk naan leen neutres waroo leen nekk naan non waroo leen toj ak yooyu waaye tamit lu ñu mën a wax waroo leen toj. parce que fi mu nekk nii après loo mënti yàq ñun ñun ñoo ci pati ñun c'est nous qui allons loo mënti yàq ñun ñoo xamante ne ñun ñooy bénéficier wu station yi nga toj station yi supermarché yi grande surface yi boo tojee ñun ñun ñoo fay dem di jënd boo ko amul nooy def boo amul supermarché proximité nooy def lépp ñun ñoo si papa tey ñun fii ñëpp ay jeune entrepreneur lañ nga imaginel nga yor sa mille francs wala sa vingt cinq 25000 nga créer si dara créer sa business dem ba business bi màgg ba fructifier wu ah benn benn émeute xew nit jóge fële toj yëpp tas yëpp wala émeute xew nga ci nga nga war a devoir tëj parce que dëkk bi dafa yëngatu nga war a devoir tëj nooy def man yenn saa yi damay tiit de damay toog ba yàgg ma naan waa ñii buñ duggee fii man lu may wax. nga xalaat kaasee kuddu waa ma xalaat veer yi bàyyi la nga tàggatoo nu mu féetee ci ginnaaw nu mu mbeddee na leen. <laughs> ñu bàyyi la nga tàggatoo askan wi rek am naa numéro téléphone yi di ngeen ko am yëpp foofu ci suuf ak euh, fi mu nekk ak dañ euh, lay bàyyi nga tàggatoo ak tàggatoo sa rawatina sa client yi ak yan kàddu nga leen di wax. ii client yi damaa kontaan si ñoom sama client yi dañoo baax billaay am na ñu bëri ñu ñëw tey dañoo baax macha allah dañuy euh, ñoo tax ma yegg fii tey ñoo tax ma yegg fii ñoom ñoo ma surtout ñi nga xamante ne ñooy sama premier client yi ñoom surtout premier client yi ils en moi parce que tey koo woo ne ko mën naa defar bi fee mën na la yónnee ma say image donc image yi fan la jóge mooy ñi nga xamante ne ils ont eu confiance en toi ba ngay commencé sa image yi fa la jóge ba tax tey nga mën a yónnee nit image ba mu ne lii la def yónnee nit vidéo yónnee nit photo et tout donc clients yi ñu jar a gërëm lañ pare suñu liggéey bi le plus souvent de bouche en oreille lañ koy xamee client bi mooy moo ñuy xam ñu liggéeyal ko mu recommandé ñu keneen donc du ñu def lu dul euh, gërëm leen remercier leen wax jeunes yi bu ñu bàyyi ku ci créer sa business commencé saak toggal ba mu ñor toggal nga jaay sa saak nga dëggal sa bopp def différence ba nit yi xam la mais mënoo jaay saak deux mois doxul nga damay jaay daal trois mois doxul nga gis mburu di dox nga ne damay jaay mburu gëmal dara nga jël booy defar mayonnaise da ngay baata di baata di baat ba mayonnaise bi far ba mu dang ba mu jël ngay doog a attaqué beneen leen du noonu donc def ba mu dëgër ba mu far nga doog a jàll si leneen euh, du ma sama euh, élément yi gis nga comment ni ñu mel yow sax gis nga ko mënuma wax ci ñoom parce que ñoom ñëpp samay doom lañ sam franchement sama doom ñoom kuy ñoom ñooy recruter c'est-à-dire kuy ñëw si ñoom ñooy wax ak yow xam nga lu ñu leen ko wax Staffing c'est une famille fii ñun famille lañ tey xoolal dañoo xëy ñoom dem jënd t-shirt dem defarlu ko gis nga t-shirt yi sama dërëm demu si damaa woon noo rëy ni mu ne ma fay naa ko fay naa t-shirt yi sama dërëm demu si ñu cotiseel seen bopp ñii jënd meew ñii jënd kafe ñii jënd tàndarma ku nekk indi ñu defar yëpp ba mu baax kon du ma terminer sans pour autant remercier leen remercier sama manager Chérif Seydi ki topp si moom nooree ni hmm? ak sama superviseur yi ba pare remercier ñi nga xamante ne surtout chrétiens yi parce que xoolal ndogu la et pourtant ñoom ñoo fi gën a yëngatu macha allah euh, remercier naa leen bu baax waaye église parce que aw ma seen fay. sama élément yi aw ma seen fay ñëpp seede nañ loolu vraiment bëgg nañu ma te gëm nañ li ñuy def ay xale yu am jom lañ gëm nañ seen liggéey di leen remercier di leen wax bon courage staffing loo ko jox mu delloo la ko ñoom sax dañ koy wax staffing loo ko jox mu delloo la ko fii gisoo fii amul ku fii sonn te après staffing du sonn ci yow waaw waaw loo ko jox mu delloo la ko franchement maa ngi lay remercier kontaan naa yaay booy ñu ngi maa ngi lay fay. tur beeg sant bi. Ndeye Aida yaayu Soda. waaw man maa yaayu Marème Soda. ban yëg-yëg ci bés. xanaa mbégte rek kontaan kontaan lool kontaan naa torop torop torop torop. parce que lii yombul jël sa alal jël sa temps jël sa lépp pour bëggal ay nit dafa yombul ndokk ba mu ko xalaatee parce que mënoon na ko xalaatee ci beneen côté waaye ndokk bi mu ko xalaatee ci fii lépp lu mu fi dépensé yàlla na ko ko yàlla fulal yàlla na ko yàlla jox lu muy joxe te lii yàlla doon commencement mais yàlla bu mu doon fee yeneen yu ci dàq yi yàlla na ci topp Euh, yan conseil nga koy jox si liggéeyam. xanaa mu góorgóorlu rek parce que soo góorgóorluwul doo dem nit ki doo doo tayal da ngay xam ne tout le temps lu ñëw rek seetlu de leneen a ngi ñëw lu daq wala lu gën a métti ndax loolu mooy àddina. di ko ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg daal ci liggéeyam yàlla defal ko ko loolu laa koy. boo ko xoolee mu nekk xale macha allah ku nekk xam na ne suñu yaay bu ñu la yaree yëg-yëg bi ñu am ci yow tey nga gis ko muy liggéey ban yëg-yëg. du ma am benn yëg-yëg wala yëg-yëgu fierté laay am parce que daf ko nàmp doomu doom jàngaaniwul ndey jaay sëriñam lii muy def daf ko nàmp ci la gimmi jox nit ñu lekk. dressé table def ko ci la gibbi kon bu ko defee du ma jaaxal c'est c'est une suite logique c'est une suite naturelle ku ma xam-xam na loolu ci man waaw noonu la dem taxawaayu borom këram ak liggéeyam ah bu du toon ak borom këram du yegg si fii loolu moom jarul sax ñuy wax ndax man ba ma ko mayee laa ko ñàkk bu yegsee fii rek borom këram la li ma koy wax rek sekk bu ko bu ko bundu xataloon du yegg si fii bu ko ne woon da ngay guddee wàcc du yegg si fii bu ko ne woon li ngay def doo ko def du yegg si fii parce que kër mooy priorité waaye jëkkëram daf ko ko yombalal borom këram daf ko ko yombalal bu ko ko yombalul woon du ma di lu ma jàpp jàpp jàpp bu borom kër jàppul woon borom këram jàppul woon du yegg si fii moom laay gërëm ak gorom gorom bu baax bi Issa Fall ak gorom ba ca àjjana waaw maa ngi koy ñaanal bu baax fu mu tëdd yàlla na ko gënal fii mu ne fii mu jóge ndax tey bu fi nekkoon kenn du ko fi jiitu bu fi nekkoon Samba Laobé sekk bu fi nekkoon kenn du ko jiitu fii moom nag moo ko tette lépp lu mu mës a def rek moo ko si jiitu moo ko jàppale ba mu yegg si fii waaye yàlla def yàlla def na nekku fi tey waaye bëggoon naa lool lool mu fekke lii waaw. lan la la gën a lan la la mës a defal lu la gën a neex bettee la xew. xanaa ay defi defi defi defi def defi defi defi def oh. mënuma defal lu ma bett parce que lu mu def ci man rek fekk na ko ci man doom doom lu mu def ci yow rek yaa ko moom kon mënuma defal dara lu ma bett lu ma defal rek am na lu des di ñaan yàlla lépp li mu mëbët ci man yàlla mottali ko waaye da nga naan def def def def defati waaw waaw waaw. lan ngay wax xale yi muy di liggéey. ñu góorlu rek ñu góorgóorlu ñu jàpp taw a bàyyi parce que jàpp taw a bàyyi ci la lépp xaj bu ñu jàppee taw bàyyi rek dinañ yegg fa ñu bëgg a yegg. di leen ñaanal ñoom it yàlla jàppale leen yàlla bàyyi leen ba ñu yor entreprise bu ëpp bi ñoom it waaw. maa ngi leen di jëfal man mii. ok. maa ngi lay fay. ah yow uh, lan nga xaritu yaay sax. waaw sama doom mooy liggéey ak moom madame Seck waaw. yan conseil nga leen di jox ci seen wàllu liggéey. xanaa ñu góorgóorlu rek dégg ndigal bi ñu di wax ñu ànd. booloo doon benn comprendre nga parce ma madame Seck nit ku baax la nit ku baax la téye na sama doom téyin bu rafet même bu ma ko gisee sax sama xel daal na parce que xam naa ne si loxo yu wóor waaw maa ngi leen di ñaanal daal yàlla fa leen cat ak seytaane ak musiba ak balaa ba li ñu bëgg lépp defal leen te ñu muur loolu lépp lépp tamit lii mu def nii tamit balaay déwén yàlla na mu nekk ay millions millions millions millions xew mi ngi lay tantam la maag yaayam ñoo bokk groupe macha allah groupe sopp nabi yaayam doon nit ku baax ku noble bés bii ñu ñu invité bettuñu parce que yaayam nii la ñuy defal toujours dañuy ñaanal sooda yal na yàlla guddal fanam wéral cëram mu yokku ba yegg ko moom njabootam ak jëkkëram kontaan nañu teraanga gi mu ñu defal yàlla bu ko yàlla bu ko mës a ñàkk ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke bés bu sell bi bés bu tedd bi lim ñu bëggee teral yal na ko yàlla bëggee noonu teral kontaan nañu yal na yàlla kontaan merci beaucoup. ayca mi ngi noonu internetu Dakar Buzz comme niñ leen ko waxee rek euh, sànq ba tey gis ngeen ñu ngi fi nga xamante ni rek moo di ci euh, ndoguli papa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay maa ngi leen di nuyu bu baax. yaay papa yi Soda. waaw man may papa yi Sodé Marème ban yéeg-yéeg nga am tey ci bés bi xanaa mbégte ak fierté ku gis te xol bu sedd ak léegi sant bu baax lu parce que soo amee mu màgg ak léegi lu di def euh, lu baax kon daal nangu bokk koog ñi nangu ko séddoog nit ñi ñoo ngi ñaan da am mbégte ba pare am fierté d' abord ci li nga xam ne réussir na ko mais ci également li nga xam ne xolam yaatu na kooku am na euh, yaakaar di ko ñaanal mu gudd fan ak wér te yàlla jàppale ko ci li nga euh, xam ne moom lay liggéey dal na yàlla barkeel lépp di ñaan yàlla nañ ko def euh, ay déwén yu bëree bëri bëri te yàlla man ñëpp gudd fan ak wér mooy ñu jàmm ju bëri jubóog jubóole wér ak wér la xale yëpp yàlla nañ yàlla sàmm sàmm njaboot li yëpp loolu lay ñaan yan conseil nga koy jox ci wàllu liggéeyam. ci wàllu liggéeyam mu góorgóorlu gën a góorgóorlu. te xam ne liggéey moom euh, non seulement ak da nga ko war a jox. mais itamit ñi ngay liggéeyal na leen bàyyi xel. yërëm leen yëg leen bu ko defee ñu fonk la te respecté la nga fonk sa liggéey jàpp sa liggéey di jubal. Euh, Bamba di Maodo. bul jël yëfu jàmbur te na nga jox liggéey bi ak xam su ko defee loo ci am mu barke loolu de laa koy ñaan loolu laa koy digal man loolu lay def loolu laa def ba jógee Senelec bi nga xam ne foofu laa doon liggéey euh, loolu daal laa koy ñaax mu góorgóorlu ci liggéeyam te lii muy def nii mu dolli ko di def parce que nangu bokk li nga xam ne moom mooy sa alal nga nangu ko bokk nit ñi nangu cee sedd nit ñi nangu ko bokk say mbokk ak eh, say am di jàmm ak say xarit eh, na wéy ci loolu incha allah yàlla dina ko dimbale yàlla na ko yàlla def boo ko xoolee mu nekk xale di liggéey ban yég yëg ngay am ah yëg-yëg boo xam ne comme ni ma la wax rek yëg-yëg mbégte bu rëy euh. parce que lii laa doon seenu ci moom ñoom ñëpp góor góorlu naa ba jur leen yar leen dugal leen école nangu sonn ci seen éducation doon ñaan yàlla mu may leen réussite moom wane na ne en tout cas mu ngi ci yoon boobu te loolu mbégte rek laa ci mën a am di koy ñaax mu góor doole góor góorlu di ñaax ñeneen yi aussi ñu roy ci moom waaw loolu daal man maa koy maa ngi leen koy ñaan. waaw di leen di ñaanal également donc ñu am ci ndam. yàlla barke seen liggéey te may leen jàmm. digganteem ak borom këram yan conseil nga ko ci jox. digganteem ak borom këram. Ah, borom këram mooy sangam mooy conseil premier conseil am borom këram la. premier jàppale ki koy jàppale premier soutien am borom këram la na ko déggal na topp ci moom na ko déggal na ko respecté na ko fonk na ko def fi mu ma def na ko def borom këram moom laa ko dénk moo ñëw ne ma may ma may naa ko. kon léegi moom moo moom maa ngi koy digal mu yiir ko aar ko yërëm ko waaye moom xale bi euh, Ndeye Marème maa ngi koy digal mu topp ci kaw jëkkëram déggal ko nangul ko jàpp ko comme conseiller ah. te loolu su ko defee jàmm rek mooy am seen diggante yàlla na ko yàlla def yan yan yan mbégte la lay bettee léeg-léeg nga kontaan xam naa paay moom dañu xaw a bëgg lekk léeg mu indi la benn bool bu baax waaw loolu dëgg la léeg-léeg jot yóbbante muy ñam muy cadeau muy leneen ñu ne lii Ndémarème moo la ko yónnee wala mu oo ma papa lii man maa la ko yónnee lii léeg-léeg mu doon loo xam ne ci. yi ngeen bëgg rek koppal. voilà léeg mu yónnee ma ko te maa ngi ciy bëgg bu baax di koy gërëm di koy sant loolu bu baax a baax. dëgg la ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf jërëjëf. Mame Boye ñu ngi lay. ñoo ngi lay fay bu baax laal la sama xarit bés bu ne dama lay seetaan ci YouTube. kontaan naa ci yow sa liggéey rafet na yal na la yàlla defal jàmm. tur beeg sant bi. maire Issa Fall Adja Issa Fall madame Seck. ban yëg-yëg nga am tey ci bés kontaan rek sama xol seddu guy ci moom c'est pas la première fois nag. c'est pas la première fois may kontaan ci moom sama xol sedd na ci moom guy yan conseil nga koy jox ci liggéeyam. góorgóorlu ak am jom ak jàpp liggéeyam ndax man mi di goroom. sama 70 ans mat na waaye ba tey retraité wu ma te li ma bëgg jëkkëram ak i magam ñu ngi ma koy defal waaye man ku liggéey rek laa bëgg képp ku bëgg ma respecté la da ngay sàmm sangor ngor sa liggéey te nag mi ngi ci mi ngi ci yoon bi yal na ko yàlla la fal cat ngay gorom est-ce que mi ngi lay bégal tubaarkàlla macha allah barki dem pañe bi ma indil jeexagul te lii muy def fii lii mu def nii tey tabaski korite 31 décembre sama anniversaire da koy def si sama kër indil ma ay traiteur jëndum xar lay def lu nekk mook ay wujjëm bàyyi wuñu ma ak seen jëkkër yi ndax moom daanaka mooy goro bu mujj kenn rek a topp ci moom waaye ñëw na fekk fi ñi mu fi fekk mel ni ñoom mbala mu raw leen baax na bëgg na ma yërëm na ma bëgg na respecté na jëkkëram benn ñaareel ba fonk na samay mbok bu sama mbokk ñëwee te fekkuma fa ci këram lay jubal si dina leen teeru dina leen teral ñëpp woy nañu ko kon nag mënuma koo fay la may ñaan ci yàlla li mu am ci cekkeen li mu ci bëgg li mu ci yaakaar yal na ko ko yàlla defal te bu ma ko ñaanee yàlla dina nangu ndax ci sama xol bi laa koy tibbe ndax man dama naan jigéen ñi ma jur duñu samay doom ñii góor ñi indi ñooy samay doom waaye ñëw na def nay moroomam di def lu baax di ko wax ba pare am jom nangoo liggéey man li may nawee nit mooy liggéey xam nga lu tax ma bëgg la yow dangaa am fayda ci li ngay def waaw man képp ku lépp lu ànd ak caaxaan bokkuma ca te nag kenn jaralatuma fen li ma dem màkka dootuma ko dem demati màkka ba ma amee 40 ba tey maa ngi dem daaw ak daaw jéeg laa demoon te liggéey laa fay defi lii muy def nii moom laay defi màkka xol bu laaba ko man nag ak yaatu ak mën te mi ngi ci yal na ko yàlla la fal cat bàyyi ko jëkkëram fa mu bëgg yegg ci liggéeyam bi yal na ko fa yàlla yeggale yàlla jubale koog ñi mu nekkal jubale koog ay jëkkëram jubale koog ay mbokki jëkkëram jubale koog ndeyam ju baax ju gore jee nga xam ni bu ko neexoon mu tàggale maak moom waaye ndey siise kere ba ma wonee mareem Mamadou indi ko ni ma yaay ma ni ko amoon alxames lañ ko ko may ajjuma samedi ñu tabaski ñu indil ma mareem booba ba léegi ba fii ma toog di wax ak yow mareem delluwaatul kër yaayam maa yaayam te loolu yaayam la neex bu ko neexoon mu ne déedéet waaye yaayam dafa xam ni bëgg na doomam sëy jàppale na ko te man tamit bëgg naa doomam mu bëgg ma te yàlla tax yal na ko yàlla la fal cat nag fa mu bëgg a yegg yàll na ko fa yàlla yeggale yéen tamit seen liggéey rafet na yéen waa dakaar Buzz maa ngi leen di seetaan de. <laughs> lan ngay dénk xale yi nga xamante ni ñoom lay àndal ndax benn lam du yëngu olof Njaay ko wax. xanaa ñu am jom xool ci moom. xam ni borom biti gu mag boo gis xelam a ngi ci magasin képp koo gis rek buy daan dooleem bëgg na bu ëllëgee mu réussir ci kon nag yal na leen yàlla jubale yàlla bu seytaane dox seen diggan yàlla bu ci kenn yàq dara dara dara dara ci barke Màkka ak Medina kontaan naa ci moom torop yal na yàlla kontaan jëkkëram nag duma ko wax dara dama koy bàyyeeg yàlla artesee gu ma de cité Aline Sow gii kenn xamuma fi rarement laa fi ñëw lii moom ma fi indi kontaan naa ci ñoom torop sama xol sedd na jërëjëf yal na yàlla kontaan merci beaucoup. jërëjëf maa leen di fay. tur bi naka la. Ndeye Seynabou Cissé madame Ndiaye. déggal loolu. dégg waaye lu tax maire yow maire euh, cité Aline gis nga maire ji lii rek la ñun. na ngeen tubaab wax nañu. ay tubaab lañ. dégg la ci la ñuy def ba bu baax. puudar kanam gi ah di reetaan ree dafa xew. ban yëg-yëg nga am tey ci bésu Soda. waaw kontaan trop nag parce que tey sama deret sax dafa yëngu tubaarakàlla macha allah ndax di ko yëngal lu yëngu rek du ko yëngal ko ëpp doole tubaarakàlla macha allah di Soda Marème mi yaayam day Aïda Cissé di sama seex tubaarakàlla macha allah at yëpp xam loolu. ñu ànd ànd bu rafet nekk nekk bu rafet dooma mi seen bopp gën ma bëgg sax ka moom man day ay invité wu ma man sooda mooma invité tubaarakàll bu nekk sama doom su ma amee xew sama kër lépp lay may ñëw defal du ma facture dara du ma laaj dara tubaarakàll nekk xale bu baax nangoo sëy nangoo liggéey waaw parce que ku sa yaay doon sëy kat faaw nga sëy seen ndey bii dafa sëy sonn sonn si seen kër bàyyi kon faaw yàlla fay ko nii lii lii man bettu ma ci ñoom tubaarakàlla macha allah te li ma gën a neex ci Soda macha allah lu am bokk na ko ak yaayam lu ma am bokk na ko ak àddina yëpp tubaarakàlla macha allah nit bu baax xale la waaye xale bu baax la xale bu mën def lu baax waaw xale bu am yitte bu bëgg gorom bii di dem nii Issa Fall bëgg ko lool ndax dafa bëgg Mamadou bëgg ndeyam tubaarakàlla di sëyal Mamadou rek sëy bu set wecc boole ko nag ak di liggéey loolu la xam ndax ndeyam liggéey rek la xam macha allah tubaarakàlla kuñ ne kuñ ne sa ndeye bon hmm? kuñ ne doom jandey ja rek waaw wóor di kuñ ko waxal nga mer rek booba taa sa ndey moo baax waaye nag ñoom seen yaay dafa yàgg am jom macha allah tabaraka ñu koy ñaane bés bi yàlla bu mu doon suñu mujjantal laytu xadar yàlla nay doon at bu nekk ñu ko fi fekk ñëpp yàlla na gën a yokk ñëpp di fi fekk ñëpp nag yàlla bu kenn feebar yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn jot dara euh, entreprise bi damay ñaan yàlla yal na ëpp lii. waaw mais yàlla ëpp lii waaw <laughs> yàlla na ëpp lii parce que. ma ne parce que keroog bi mu loolu ci bari feem rek bari feem rek keroog bi ma ñëwee fii di ñaan ci entreprise bi. tubaarakàlla xamoon naa lii de ci tegu macha allah te leneen ak leneen mi ngi ñëw parce que lu mu liggéey la liggéeyal ko te nit ki yàlla ku ko ku ku yàlla ku ko xëyal mu waaw li ñuy wax yàlla ku ko xaw ma yàlla ku ko guddil mu bëccëgal la tubaarakàlla macha allah tubaarakàlla yàlla yàlla daf cat sama cat ak sama catu morom nag waaw xale bii fa mu bëgg yegg yàlla ko fa yàlla yeggali te dina fa yegg ndax dafa teral ndeyam barki dem booy njaale yóbbu yaayam ak magam umra macha allah tubaarakàlla yóbbu leen ba kii fa place fa la ko joxee billet bi bett ko mook ak magam yaa ngi dégg woo ñëpp te kenn ku ne xam ngeen kii fa place 35000 francs ngeen di fay du dëgg pour añ reer ndekki ak seen i façon ak seen i bagage tubaarakàll mu woo combien de personnes macha allah kon loolu cuune mënu ko cuune mënu ko damay ñaan nii rek la mën a mel parce que yaay bi boo xoolee yaay bi toog nga xam ne nii la mën a mel macha allah waaw ñun am naa yaakaar ci kàttu yàlla du ñu am defet daal ñun du ñu am defet waa kii di la ruube nag waa kii di ma ruube nag moom wax dëgg yàlla moom sama doomu ndey la <laughs> daf di sama géwal di sama doomu ndey. dama leen bëgg a jaxase de loolu nga tontu. xadi waaw kee moom li ma la ci wax ma seex la moom. a yëpp xam nañ ko waaye kii tam daf sama xarit. donc day yàq say wax. waaw non non non yàq da koy xoramal tam. xam na ne yoo ne yow ku yàq say wax defaraat. waa gis nga ko man ma defaraat ko xanaa gisoo ma. ñambaas yàqul la. mère nga ne lan yow. ku yàq say wax defaraat. mère filing pàcc. jéeg <laughs> bu la loolu wër na. boo yeewoo bu baax a <laughs> avec plaisir. <laughs> nga ne mu ne la. dégg tax ngeen bëri fi nit ku baax ku wayaf alalam du ko boole kenn macha allah loo ko gën a bëgg mu bakkoog yow. waaw mais mère bee ruube na la nee na da nga fàtte sa tey. waaw waaw dañ tolu ci tey guddi laytul xadar bu ma demee damay simmeeku sol yu weex da ma dem ci jumaa ja dégg nga lii yow loo wax ci man. kontaan morom di yaa leen mën ah yaa leen mën xeef yi nag dama dindi xeef yeeg wee yeeg ñoom seen yooyu bëggoon naa la gis foo defee yooyu <laughs> ah. ma boo defee yooyu boo façon laay ne non beneen nit laay ne di xappi xappi rek nag naan lii nag di xappi xappi rek nag xam na da ngaa jong ah gadi jong maatu ba damaa ñaaw léegi <laughs> ñu ngi lay jaajëfal kontaan naa ci yéen yéen tam fa ngeen bëgg yegg yàlla na fa yàlla yeggal ndax ah, li yëpp ci jom la bokk nit liggéey liggéey rek a fi ne leneen new fi yàlla na yàlla gën a jàppale fa ngeen bëgg a yegg yéen a ko xam yàlla na fa yàlla yegg ci barke guddi gii waa te yàlla ko fekke tal ko ñu ñëpp te bokk ko barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ndax tey jii bu ñu xamoon ne dakaar Buzz day ñëw dinañ def ba xam ne dakaar Buzz am na gan ndax kii ñeenti mètre lay wo mbusóoroo def xef yu tool nii def vey yu tool nii léegi tey mu tey ku ko gis doo ko xàmme wóor na yàlla tey ku ko gis Dakar Buzz du ko xàmme parce que moom ñeenti mètre bu tuutee ba tuuti bu ma rëyee ba rëy juróom-ñaari mètre lay def mu sóoro ko muy jol jali teg lunette yi xam nga nag weeru koor gee tax loolu daal moo ma métti waaye waroon nga ko def ci bëninam waroon ngeen ko def ci bëninam ak kii nag moom kii nag kii nag moom mooy borom biye yu bees mooy borom biye yu bees yi borom cuuraay yu neex yi mooy borom parfum yu neex yi ak ak euh, nu mu tuddati supp supp supp supp borom supp supp fruit de mer moo kii mooy borom kii moo neex a fekk societé générale ay xaalis yu bees tàq lay doxantoo te xaalis yu bees tàq lay may ay gërëm mooy sunu géwél mais moo ñuy may xaalis wax dëgg yàlla aha waaw kay moom mii moom amul morom yàlla nañu yàlla lafal cat dañu ko waajul parce que man bi ma yegsee fii laa doog a xam sax lu fi xew wër na Nabil Moustapha daf ma woo sama kër ne ma damay damay euh, invité ndogu biig la ma woo ba ma xëyee dama toog sama kër ba bi ma fi yegsi 7 heures 20 laa fi yegsi ci laay doog gis yëpp ci laay doog a xam lii waaye dara bettu ma ci li ma koy ñaanal jàll yal na ko yàlla lafal cat fa mu bugg a yegg yal na ko fa yàlla yeggale lépp lu mu ragal yàlla bu mu gi ko gis lépp lu mu yootu yàl na ko ko yàlla defal te mu doon jiglaayam loolu laa koy ñaanal maa ngi koy ñaanal yal na ko ca seexlu maa koy ñaanal làmmiñ aussi yàlla na ko bàyyi lépp nag lu mu fi mëbët pour def ko pour di ko ko jox ay nit yàlla na ko ko yàlla yombalal lu mu ci def rek doyul lu mu ci def doyul lu mu mën a def rek xeeb naa ko lii mu fi def tey xeeb naa ko bu ma sañoon lu raw lii la fi def te maa koy ñaanal yàlla dooleel ko ba mu def lu ëpp lii. ñu ngi lay jaajëfal waa kay jërëjëf yow tam sa musóor ndawul de. ah daa met deux mètres cinquante. non waa bii moom deux mètres cinquante parce que mënu ma musóoro mooy de deux cinquante mais nag. daf ko def ci weeru koor loolu rek a tax moom daal nëgal ba weeru koor weesu nga ñëw côté bi parce que sama kër a ngi nii bu boobaa nag nga xam waaw. ayca mi ngi noonu internet Dakar ba sa euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi ziar bu baax a baax. tur bi naka la. Noreny. Euh, fii ngay liggéey ci estafing nañ koy waxee. Stephen Azansi. Stephen Azansi man mënu ma aw seen tur. si si daaw <laughs> anglais la moo tax. anglais moo tax mu kom. moo tax mu ban yëg-yëg nga am te ci bés. kontaan rek ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla gën a toofeexal ñu gën ko mën chaque année lii moom monsieur bi la waxoon rek ndabe ndab te si weer bi nekk nii dafa fekk weer boo xam ni suñu borom si def loo xam ne xéwal yoo xam ni dafa toofeexe parce que si la wàccee alxuraan waaw yaa ayyuhal lazina aamanu kutiba alaykum siyaam kama kutiba alal lazina min qablikum mu ne fa man shahida minkum shahran falyasumhu moo tax chaque année dañuy bëgg weeru bonus bi ñu siy jaamu yàlla di si def ay ay yoo xam ne di si joxe ay ndog yoo xam ne suñu dana ko ba gis ngeen ni mel dañu bëgg chaque année suñu borom li ñuy tawféexal di ñu xéwale ñu koy mën di ko mën di ba ëllëg waaw dem bay baas bi yëpp si kàttanu yàlla tas mën nañ ko te nanga def bu yàlla ñun daal nii lañ mel ñun moom famille nañu gis nga ni ñuy nii moom la liggéey prestation ay ñooy ñooy ñooy kafandoo ñooy bigandoo amul ku ne dañu nëbb sa waaw kii ñëpp ñooy àndandoo ñooy kafandoo lépp famille lan daal famille boo xam ne dañu ñaan yàlla yàlla gën ñu jàppale si weeru koor nii rek gën ñu sàmm ñi mën ren ji ñi mën lu ko lu ko lu ko yow fi ay nag si mën ko daan ko def incha allah bu soobee yàlla nag yi daan ko yow fi bu soobee yàlla incha allah def ko si kàttanu yàlla si daal sama lu ñu bëgg di baax chaque année bu soobee yàlla waaw loolu lay wax ba yan kàddu ngay dénk euh, Soda. ii kooku kooku moom dafa tawfeex kooku. est-ce que liggéey ak euh, mais liggéey liggéey en fait xam nga nu rek mais gis nga liggéey boo dee baax amul ay naxtaan ak yooyu noonu moom moom ak cadre liggéey dañuy liggéey dañuy dañuy job parce que moom li ñu ñu yaree man li ma yaree ak ni mu yaree nii mooy liggéey. waaw ñun dañuy liggéey sax di nekk si liggéey boo xam ne wallaahi azim xam nga dañuy teg pression mais pression dañuy damay jàpp ne man lii genre tarbiya la ko wax daf ñuy yar. mais bu jeexee jeex na après ñooy kaf ñooy ànd ñooy def ñooy fu ñuy neex mais cadre liggéey moom dama jàpp man nii sa laa ko liggéey ma teg ñu pression ñu mën a liggéey na nekk quoi ñun am ñu foo dañuy dem prestation ba saf wallahi azim après buñ paree soow nañu jënd si yoon bi wala miskit lekk ñibbi parce ñu seeree noonu ñu ko waaw dañuy mel ne comme si mi ngi taxaw suñu kanam duñ def loo xam ne war na ma ëllëg nit dafay gis naan kii xeeb daal non duñ ko def mukk ko sax kii sa nawle la waaw kii moom kii kii mooy suñu DG mooy suñu lépp DG ñu ngi lay mais DG liggéey bi fii naka la deme parce que gis nañu ne macha allah équipe bi yaatu na lool ndax ku nekk dafa am euh, looy jël yéen ay raxas yéen ay yéen ay togg yéen ay seetal waaw ça va tout d'abord maa ngi leen di ziare tout équipe yëpp di nuyu suñu boss moom mi waral li yëpp waaw pour pour pour dire équipe bi daa am ku nekk daa am lu muy gérer parce que man mii tey man maay assistant madame sekk man maay gérer élément yi kii mooy sama assistant Omar Sarr élément yi ku nekk daa am lu muy gérer saa yu ñu demee service daa am ñuy gérer assiettes yi am ñuy gérer bar bi am ñuy gérer plonge bi. Mhm. liggéey ak madame waaw mën naa ni yomb na yombul ndax adduna bi moom ku la bëgg rek moo lay wax dëgg te moom dépp bu ñu nekkee moom mu ñi wan yoon bi waaw namuñu dara daal namuñu dara namuñu dara macha allah. salaire lu bëri non taw feex man pour dire maanaam seek moom moo lay fay ba pare mayaat la. moo lay fay tey suba mu mayaat la xaalis. li ñuy fay wallaahi azim double bi la ñuy mayaat imagine loolu salaire boo xam ne da lay fay da lay fay temps mayaat la double bi boo ko waxee waaye li ma yónnee ëpp na de mu ne la non maa la may. wa rabbul kaaba billaay dañu jëriñ ñuy fenn toog ba xam di wax ni da lay fay pare yokkal la mais en fait ñun tamit liggéeyantuñu bul xaalis parce que ñun bëgg-bëgg dañuy liggéey léegi ñun SFN daanaka dañuy liggéey sax ba xam nga kii day jël xaalisam def man dama jël sama xaalis def loo xam ne dem ci yàgg mbëgg bëgg-bëgg moom lañuy liggéey quoi ay nekk fii di liggéey ak xaalis wala di ñëw am benn fii ñibbi non non passé foofu léegi sax ko waaw léeg-léegi ngeen di guddee wàcc waaw événementiel moom moo demee noonu xam nga xew Sénégal rek amul amul heure des fois mën nga teel a wàcc des fois mën nga guddee wàcc c'est les aléas du travail. ñu ngi leen di jaajëfal. ok merci. lan ngeen di wax client. waaw bon kër gaa ngi nii waaw yomb na taw feexe na waaw te boo leen jëlee dinañ leen liggéeyal ba ngeen kontaan ndax ay jeunes yu dynamique ñoo fi nekk macha allah ñuy liggéey te yàlla tax ñu dara ci kenn ok merci beaucoup.